ne euh, moom ba muy juddoo la ki ñu ko tuddee mooy maamam nga xam ne moo jura waajuram bu góor si lañ ko fal imam moo tax ñu tuddee ko ilimaan moo tax mooy baat ilimaan Cheikh Ndiaye boobu ngay dégg euh, loolu nag euh, moo indi tur ilimaan ñu dañuy laaj ilimaan fu mu jugee mais maamam lañ ko tuddee te maamam moo jur waajuram Ablaye Ndiaye looloo tax mu porté turu ilimaan bi di ñaan yàlla yàlla na ko tur bi jég ndax maamam ki ñu ko tuddee ko baax la ilimaan la woon ci koñ bi macha allah di wax ni sunu doom la ndax eh, mag waajuram ñoo bokk papa daanaka ñoo bokk ndey ak baay sax mën naa ko wax eh, mu baax loolu ci ñun di ñuy jàppale di jàppale ay frèram di ñu gestu di ñu defal lépp te tànkam loo ñu di tamit sant ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci koñ bi mooy eh, ay rakam ay rakam ay cousin ak yëpp ne ci koñ bi di ko jàppale ndax li yombul ndax ni ku ne ñaan boo gestoo nga gis say mbokk nga gis say àndandoo jàppale la doole la kan ma jël kàddu gi jox kenn ci ki nga xam ne moo représenté xale yi fii euh, mu sànni ci kàddu. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw di nuyu suñu grand yi waaw ndax jàppale leen ñu kenn mosu lay xamee si dara lu ñaaw ñun nag lu ñuy ñaan mooy HLM 1 ba 6 nañ génne ñëw jàppale Elimane. na ñëpp ñëw génn ñëw jàppale ko ndax noonu lañ def Mbaye Diagne ba muy fubal ñu noonu lañ ko doon def HLM 1 ba 6 ñëpp ñëw jàpp bootu si ginnaaw Mbaye Diagne instant HLM benn jour lañ am moo ñuy représenté moo Ilimane Ndiaye kon HLM 1 ba 6 na ñëpp génn ñëw te jàppale ko ànd ak moom match yi ñëw échéance yi ñëw ñu ànd ak moom gën ko dooleel ñu ngi ñaan nag HLM 1 ba 6 ñëpp nañ génn ñëw toog waaw maire bi tam ñu ngi koy woo monsieur le maire ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu sabit ndax xam nga ni xarxat yi xam naa xarxat yi moo tax mu demee noonu mais xam naa am na ay échéances yu ñëwaat dinañ ko gën a waajal tamit incha allah rabi waaw.